mbokk jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonent bi dellu di sant sunu sëriñ sunu yaakaar ki waral ñu daje fi ki nga xam ni moom la ñuy màggal tey téeméer ak ñaar fukki at bi mu génnee àdduna ki nga xam ni bi mu gënee àdduna indaale na ay xar baax ki nga xam ni bi mu gënee àdduna indaale la ngërëmal waajuram ki nga xam ni bi mu gënee àdduna indaale na ngërëmal ñi nekkoon ci wetu waajuram wi di Seex Mouhamadou Lamine Baara Mbacké ñuy taasu ci barkeem muy sunu yaakaar àdduna ak di nuyu di ko jaarale ci rakkam sëriñ Bassirou xalifatu général kull murit xalifatu général kër sëriñ baara ki nga xam ni yàgg naa def lu baax ci diine lislaam te nekkul xalifa waajuram ki nga xam ni nekk na ci àll bi di bay di topp yàlla ak bi di liggéeyal Serigne Touba di liggéeyal sëriñ baara ba xëy nekk sëriñ Bara ci kaw suuf di tabax ay kër sëriñ Bara ci biir Sénégal Ndakaaru Mbakke Kajoor Guy Mbind fu ci nekk di wane taxawaayam ki nga xam ni taxawaayu diine lislaam tax na mu yàgg di jël ay jullit ay taalibe